non mais. ça waaw euh, ñu gis ni aussi euh, Madiambal Diagne moom itam bàyyiwul benn yoon Ousmane Sonko ndax gis nañ Ousmane Sonko taxawee nii ci tapis rouge bi ngeen bàyyi ma dinaa ci dox par force. loolu la Madiambal Diagne sorti boobu neexu ko ndax nee na dafa réduire le pouvoirs de Diomaye bokk na itam ci Omar Sow bi ko tuddee le premier ministre de la République <laughs> Omar Sow ancien ministre conseiller à la présidence. bon man danga may may ma ma ma def ni Ousmane daal gars yi tooñ yëpp ma do boole leen ba ñuy téeméer ma boole duma may ma loolu ma bañ ko personnalisé mais wax ak tamit sama ñi nga xam ne dama leen xam ci jub xam leen ci dëggu xam nga Birahim Seck quand bu Ousmane ko waxee ne li fi amoon dootu fi amati sàcc ñu lay baal loolu leneen la mhm. ci côté bind lu la neex parce que yonent bi nee na nangam nangam ak yooyu ku fi bind lu la wóoru ah mais est-ce que. Birahim mais mais ci ki mu doon def allusion mooy le journal euh, La Tribune. waaw te moom daf ni si dana sax fi mu gisee article bi mu dugal. waaw mais ci biir loolu Ousmane Sonko ci jamonoy Mame Mbaye Niang aussi rapport bi mu gisoon ba di ko ci internet bi la ko gisee woon aussi. waaw xam nga tey mën naa wax ci internet bi rek ko la wax ne ci internet bi la ko gisee. moom wax waaw d'accord waa mais mën na la wax loolu. mais tamit xam nga maa ngi benn rapport boo xam ne nee naa la am na ñoo xam ne yoroon nañ ko. Hmm. bu ma la wax ñan la woon nag parce que taxaw di ci public di avoué naan rapport boobu yoroon naa ko rek mooy délinquant nga woon. Mhm. mais daal xam naa ne daal ci kii yi am nañu ko yoroon. Mhm. xam nga nit ki journaliste man jàpp naa ne war na mën a xam ne lii bu ko waxee dem kaso muy intérêt réew mu wax ko. Mhm. comme tey li daloon Pape Alé Niang mais loo xam ne buñ paree ba nga wax ko gisuñ ci fenn intérêt réew mi lu yàq réew mi la. Ibrahim Seck xam na ko keneen ak xam na ko mais faaw nga xam ci li Ousmane Sonko di wax nga ci li koy tontu man ku mel ni Ibrahim Seck dama koy. dogal ngànt mm-hmm. même que Baye Adama man ñi ma xamoon ci jub mm-hmm. dama leen nangul ne dañoo jub ba jusqu'à ñuy deful ko wor loolu laay wax mais bu dee ñee nga xam ne des montres cassées ils n'ont raison que deux fois par par par jour ñooñu duma wax ci seeni wax damay ñëwaat tey ba tey parce que li gën a am solo ci parce que dafa am benn mbokk moom ma feeñu mm-hmm. déglu Ousmane ba Ousmane jeexal mu ñëw ne ma li Ousmane doon wax jàpp ma ci dara ndax coow li waaye na koy toje ma ne ko déet joxoñ ko Cheikh Baara na ko ne ko kee di toje mais su ma nee Cheikh Baara mën naa wax mami wax keneen ak keneen ak keneen xam nga amuñ problème moom mhm. Ousmane mën nañ ma man man bëreet sax bu nit bu ma neexoon wala da mais li mu wane nag wax dëgg yàlla am ku dul naaw fekk war a xam ne lii la booy jàngat réew te bëgg sa jàngat nga teg ko ci objectif di wax dëgg da mhm. nga waxal li ko yàlla may ñëw na comme li mu wax contrairement ak li ñeneen bëggoon mooy def costume affaire bi di la soodee wala yu demee noonu nga ñëw maye sa benn maanaam chemise bu baax ak sa super sang daal yu baax macha allah. Mhm. très soigné même def sa cap wane ne xale bu góor bi moo taxaw di wax ak yéen seen morom bi ngeen war a demal ci vacances ñoo war a wax ci yéen. Mhm. ñëw ubbee discours am ak état israélien entre Palestine. mais mhm. loolu duñ ci wax. parce que xam nañ ne loolu yet wu dal fa mu war a dal la. wax ak grande puissance yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne démocratie moo leen yitteel. te saa su nekk ñu ngi gis ñuy réprimer waa Palestine di leen def lu yoon ñoom ñuy wax ne ñu ngi ci état de droit. Mm-hmm. xam nga foofu mooy mooy loolu it naaw fekk googu it même dal na ay nit mais ab sàcc détourneur de deniers publics kan moo ko war a euh, sàng sutura man patron de presse bi bañ a fay impôt par man moo ki def détournement de deniers publics ñoo yem. na lañ ko teg dañ laa yónni ne la joxal ma kii nga dabb ko def ko sa a fay ñaata journaliste ñoo fi dem retraite c'est xool bi ñu demee ndekete versé lu ñu leen di mais loolu doo ko doo ko lijjanti mais ki lay wax ne loolu dootu fi am fay rek. kooku kay yow lay xeexal sax na yow lay xeexal. dëgg yàlla waaye àdduna dangay leen di xeexal ñu lay xeex. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo ci moo moo ci am pour man loolu waroon na mañaat bu dal ku mel ni grand Birahim mu Ndiaye moom day tappale loolu moom mooy mooy wax bi non non ay tappalekat lañ. Mhm. wax dëgg yàlla ak la non Cissé bi bi ma ko xamee ak yooyu yëpp man je suis ci sant yuñ bokk mais nañ ñëw ci le. cas bi mu wax ci Israël pare daal di ñëw ne politicien bu mag bi mm-hmm. ki dàq politique ci àdduna ci moom laa jànge politique mm-hmm. ñëw wax fa mu ko teg dama gis benn euh, télé ma invité ay dix heures onze heures mm-hmm. ba ma xoolee maa ngi sol benn maillot football di ñuy débriefé quoi mais biñ pare <laughs> ñu daal ni réaction de Sa Wolof après discours de Sonko xam nga loolu tamit baaxut bien vrai que li may wax foofu da ngay bu ñu la ne woon lii après la ko wax danga koy gëm mm-hmm. mais man avant laa ko wax fooy looy xaar ko ci yan lay war a wax nangam nag ma ñëw wax ci muy laal maanaam mën naa la la bu doon euh, kii la la kii doon wax bàyyi li doon wax naan jàpp naa ko ca ordre ba. Mm-hmm. couple gagnant la xaw ma nangam ca ordre ba. maanaam wala daal. Mm-hmm. suy fay xaw ma kente. yaa nga ci bu baax ba. <laughs> voilà bu baax pour cent ci li Sonko doon wax. fekk ma ne nii laa gisee li li mu war a wax ci nangam bi affaire bi passé dañuy dañuy teg la réaction de Sa Wolof après discours de nangam loolu nag xam nga lu tax. parce que ñun dama ko yàgga ne Ousmane inde bee ko suuf ay keemam dong la ko boole maanaam ñi nga xam ne tey Sénégal bi nga xam ne ñu dugg juddu dëggu bëgg a seen réew tege ci yoon ñu di ko ci teg ñii kenn faralu ci woon Ousmane Sonko ñi ci ëpp amoon na feneen fu ñu far mm-hmm. mais dem ba xam ne carrément kii mooy lonkil qu'il moo tax ñu di ko nangul di defendre dëgg mu bokk ci fi mu nekk mhm. kon bu waxee yonentu yàlla du ne liñ ko jàngal ba wax ne ci ñetti état bi màkk yi ne bañ koy wax am na jamono ña nga woon màkk ne moment bi def vidéo yi maa ngi sulxul xudday bi yëpp mhm. loolu mooy am na lu dox seen diggante te sulxul xudday boobu dafa am solo mhm. li nga xam ne moom la yonent yàlla Mamadou diggante woon ak yéefar yi yegg na ci bi ñu kii sax signé ko mu bëgg a signé kay daal bëgg a signé Mouhamed Ibn Abdullah ñu ne ko déedéet na dañ bu buñ gëmoon ne yàllaa la yi duñ ko def mu signé loolu sëy naa leen sax dane woon du ko dindi faral ko fi mu tàmbalee mujj wax waaj na ko wax ma fi mu la tàmbal ba fan la yem mu ne ko fii la mu far mhm. noppi ay jullit ne ñeet mel ni ku nanguwut lim def quoi comme mhm. comme comme comme comme comme keroog euh, umu salmata yaakaar naa soxna su baax moo ne ko yow ñi yow rek lañ bëgg te yow lañ wóolu danañ bañ ñi nanga mais rayal sa xar wan leen ginnaaw sol sa summi sa armal wan leen ginnaaw ñëpp lay topp wan leen ginnaaw après ñëpp topp la même chose que bi mu waxee ba tudd baatu ne yonent bi baale nit ñi di wax foofu. Mm-hmm. Euh, kenn ku nekk commencé baale wu ñu baale wu ñu baale wu ñu DJ bi nag di ko joŋe nag maanaam foofu da xam ne ay ay kàngam maanaam bi coow li commencé. ba Abdou Guité ba rëkk Ousmane Sonko mi la ki waxal yu laa wala nag <laughs> gars yi jël way wa ak far yéegal mu dem ba mu yàgg ni ko. Hmm. andiwaat teg bi mu tegaat ko ci tempo gërëmaat ñi sant ñi sant ñi doo ko ñëwaat ci mbir mi jàkkaarloo ñoom ñëpp di ko déglu mu ne leen bi mu ko defee dafa am lu mu wax waaye ndax dañu ne dañuy baal ki rey xool nit ba mu kii bokkul ci baale bi waaye ndax dañuy baal ki sàcc alal réew mi bokkul ci baale bi waaye daal ne nag te loolu Ousmane ba mu koy wax ne nit ki ma jëf li ma jëf nga xam ne man la mën naa koo baal baax sa alal ñeme sa der mhm. mën naa baale yi fa mais Amdi Moustapha bëggut a baale doo baale mhm. kon problème jafe-jafe amu fa. Mhm. mais ñiy waxaat impôt ak yooyu say say naa Bakar mi wuute yonent bi bi mu ko wuutoo mais li am nii dafa am dañu toog ne duñ fay impôt ñenn ñi ca la euh, teg sam bu garaaw ba baat bu garaaw ba. wallahi law mana'uni hiqaara bahiiri la xaatalahum jamian ku ma banal ci ñoom lu toll ni sëfu mboccoor mooy xiqaara baxiir maanaam gëléem gu ndaw ci gëléem mhm. maanaam loo xam ne moom la attan ku ko ci bañ amul damay joxe lii walla laa lépp ngay joxe impôt fay la sant bu dutub séeréer sax nag fay la sant même bu dutub séeréer lii la Seydina Aboubacar wax Seydina Ali lii la wax impôt day daaneel réew ci la ñuy def ku ko bañ a fay loolu la kon tey bu la Ousmane ne ci yonent bee ko ba pare nag waxaat ne mm. yonent bay sama kilifa waxuma ko ci sax côté spirituel. parce que mm-hmm. même Occident am na ci ñoo xam ne ñu ngi gëstu li nga xam ne mooy njàngalem yonent bi lan moo tax mu gën a am. gën a am maqaama ba nit ñi yëpp di ko di ko di ko topp ba tey mu wax. ba ne ña doon wër di dem ci kër yi di yàq suñu der te pourtant ñun ñu ngi nii bi ñu tegee amul kenn fu ñu amee xejj ak seen. Mm-hmm. waaye nag mu ne ñooñu tey. maanaam ña leen gëm maanaam même sëriñ si nga xam ne tey bi ñu see gëm la parce que boo xoolee ku mel ni imaam ndaw nga xam ne buñ doon imaam ndaw bi laax Seex Tijaan ndaw mhm. buñ nekkoon ci atteb l'islam dañ koy caw mhm. dañ koy duma mhm. juróom-ñetti fukki weer lañ koy duma parce que boo fenelee nit dees laa war a duma boo ko fenelee giñ ko tuuma te loolu la def dangaa jël fene jàmbur jël ko jëfandikoo euh, laaya ji in jaakum faasixun bi naba in ba leerlul leerlu wut daal ne bàyyi jaxaate sax bu ñu sukkandikoo ci nag ay waaye ndaw sàmba yow yonent yàlla moomu digal la yàlla digal ba dem kaso ñu taxaw ay nit naan ay collectif xaw ma lan affaire kii ci la ne boo xoolee la mu wax maam waa ji dafa dégg wolof daal ne ñoo ñu déggoon leen tey daal ne ñooñu am nañu lu ñu rus pour ne pas dire rusuñu xam nga am nañu lu ñu rus ak rus nañ parce que am na ko xam ne amut ras dof du wàcc di ndax xel ma du tey. waa waaw dof maam li tax mooy xel ma du tey. Mhm. maanaam parce yow lii wala ba wàcc ko xel mu tey dof du ko wàcc. Mhm. maanaam loolu moo tax mu ne ñu tey am na nañu lu ñu rus maanaam man santi baat yi fi ko Ousmane di di di di di teg maanaam man lii moom yëpp foofoo la neex waaw am nañu lu ñu rus xam nga boo ne woon rus nañ sax waxoo dëgg mm. mais même bu ñu am nañ lu ñu war a rus tey mm-hmm. parce que li ñu la wax mooy dangaa war a leerlu ba noppi ñëw ne la diw nangam nangam mm-hmm. mais koo xam ne lu ne nga def ko xanaa xamu leen waxtu wi daaw heure bii saa tembe nii nii nii nii nii la sëñ Seex Saaliwu mm-hmm. yónnee ay xar te boobu ñu ngi doon waajal manifestation gis naa benn kii boo xam ne waa APR nee nañ le 17 lañ doon waajal manifestation. Mhm. mais le 17 ñuy jub tam même bu dul tabaski tamit jege na tabaski nga war koo ajaat pour wane. <laughs> ne lakk yi far mu ñëw doon bee mhm. mais pour wax ci rek ñun ci boobu dañu toog F24 maa ngi fàttaliku gars yi ne non comme tabaski bi nit ñi ak yooyu buñ ko buñ ko def comme la même chose rek nga xam ne cinq jours avant tabaski sax ma 4 jours avant tabaski mhm. sëñ yónnee ko xar Ousmane di wax xar miy dégg xar mi na tek maanaam ku xàmmee burtu burti xar ak xar mu yëg boppam nekk diggu doole buy wax mu nekk ci mel ni xar mi day day seede boo demee xarmaang ko boo demee laax nag wax ma lu dul dëgg boo demee ah, xarmaang naan ko ah laay xar mi boo ma tabaskee day bu déenee tey wax dëgg yàlla am liñ gaw sa kër dañ ko gaawi lii mooy dëgg koo daan fenal amut moyen te yonent yàlla Mamadu mi mu waxal mais ci tumburanke la tegee li mu teg mm-hmm. boo déggee suñ borom di ko wax alam yajid ka yatiman fa awaa oo jënd ka daalal ndax fekkuma la woon ngay ku réer ndax daama gindi la waay waay waay waay wa amma bi nihmati rabbika waaye bu ma la defalatee lu baax waaye eh. dee ko sant buñ keroog dañ doon sant bu ma yëngal ana sama xol bi non non tey yaamal sama benn xarit ci foofu <laughs> ca dem si yàlla coon sekk yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. dafa am lu mu jàngale lu am solo te dama ko faral di ko wax coon dana leen benn minute silence si euh, ixlaas mm-hmm. moom a gënal bu silence mm-hmm. bëgg naa ñu takkook juróom yi mm-hmm. Ousmane ñëw ne nañu jël une minute de prière ñaanal ci nangam ak nangam xoolal li mu jàngale foofu sama benn mag Matar Kébé maa ngi koy jaajëfal dama sa dégg bu ma déggee wu Thione Seck di way ba gudd fan ba naax ba ñu lay weer ci naaj nga war a xam ne ragal na too dee. Mhm. xam nga bu jinaax de woon tuur cigarette tux cigarette kon bureau yeeg marché yi lakkandoo ma déglu ko mu yàgg ma ne ko grand yow mais Thione Seck li yow bu ne ma Abdou Thione wayut day à mhm. waaye keroog Ousmane politique wul keroog da doon à 10. jox na gars yi bindu.